Idali euh, dañuy dugg ci beneen actualité di ñànku ak ki nga xam ne moom moo di bébé Eva ñu gis yaadoo daal di feebar euh, ki nga xam ne moom moo di bébé Eva daal di koy defal benn ket ba daal di koy euh, dajaleel 8 millions 40 quarante mille ak 4 mille je pense donc mu nekk loo xam ne sénégalais yi rafetlu nañ ko mais dafa am coow lu bëri. ñi naan bébé Eva dafa joté ak ñanku motax muy def lu ni mel Adamo itam daal dugg ci coow li ñu né mam Ndiaye sa mom mom moko yoni pour mu yàq ki nga xamni mom modi bébé Eva ciow lolu ana nak nga ko gissé ba momo tay euh, laaj nga ma luma ñor laaj nga ma lo xamé ne dama yàkkamti woon wax ci parce que bi muy am fekkuma fi bob ma ngi won ci ay yitte aw mon temps vraiment euh tay muy ciow lo xamné polémique bi bari na ci aduna bi euh, mais limay ñëk wax di ñaanal bébé Eva xaw xaw ma ko xam naa ko ni xaw ma numéro mm, mosuñu taxaw ma moom wax amuñu benn relation xaw ma fu mu dëkk mosuma ko woo téléphone mais bis ni ki tey bébé Eva ku ma naw la dama ko naw moom. lu tax barki Serigne Saliou. Mm-hmm. bis ni ki tey bébé Eva man jël naa engagement am nekk grand frère am bis ni tey Eva lépp lu ko xuseeti. man dinaa jóg taxaw si ki tey ci li ma mën yëpp nag barki alxuraan parce que dafa def loo xam ne tey avant mooy ñëw ci polémique bi yëpp dafa def loo xam ne tey tey kilifa diine yi ñoo ko waroon def dafa def loo xam ne tey kilifa aada ñoo ko waroon def dafa def loo xam ne tey milliardaires nekk Sénégal ñoo ko waroon def dafa def loo xam ne tey ili imaam yi ñoo ko waroon def te dafa loo def loo xam ne tey yàlla suñu borom moo ko digle su moroomu doomu aadama bu amee jafe-jafe waxul waxul jullit de dane moroomu doomu aadama nit ku am jafe-jafe danga ko war a jàppale te yàlla tax kon bébé Eva li mu def alxuraan ak wax yàlla wax ko def na loo xam ne tey def na loo xam ne tey siggil na lislaam te yàlla kontaan na ci moom Seydina Muhammad kontaan naa ci moom bébé Eva musuma ko musuma ko xam mais tey bëgg naa ko 100 pour cent te dina xam ne bëgg naa ko lii mu def ni tey kilifa diine ñoo ko doon def moo xam kilifa gu nekk Touba moo xam gu nekk Njaasaan moo xam gu nekk parce que yàlla loolu la waxtuñu te nekk réew moo xam ne dañ ne réew mi moo gën a nekk jullite moo gën a nekk réew moo xam ne dañuy dimbalante mais xoolatuñ loolu léegi lu bon la xool léegi lu bon la defante ci internet bi bébé Eva li mu def amul kenn ku ko mos def ci waxuma góor de waxatuma jigéen daa 24 heures nga génne 8 millions et quelque koo ko defal muuminu yàlla lal mooy muuminu yàlla mooy koo xam ne feebar na tëdd fi mu jógee fi mu nekk mënu fa defal boppam dara lu def dañ koo defal nga xam ne yàlla rek lay xaar yow yàlla yónni la nga ñëw lu ko yow yu ñëw di la xeex nga def loolu tey loo xam ne tey imam bee ko war a def loo xam ne kilifa diini gi moo ko war a def tey parce que yàlla moo ko wax dimbal leen seen biir moom mu toog jaay image am moom mu andi ñaar dërëm Idali andi ñaar dërëm keneen andi ñaar dërëm du Sénégalais ñoo jox xaalis de Eva xaalis boobu mu yóbbu tey du Sénégalais moo ko jox tubaab sax mën na mën na joxe motax mané ma du affaire de julit wala nangam affaire doomu adama la ak doomu adama banni adama lañ wax kon bébé Eva lim def def reuy bébé Eva dañ ko waron woote conférence de presse tay kilifa diiné yi woné bon exemple nit ni wara mel jigen ni wara mel nit ku bax ni wara mel mais may wax doomu kharam yi ngeen djegal ma mm. ñew di ko sampal di ko defal yenn yi di ko wax yenn yi dañu xol ñom tay seen yaay bu doon mo feebar wala seen mak tey seen loxo jotul seen ginnaaw nan la ñuy xalaat bébé Aliou dafa rëy dafa siggil lislaam dafa siggil diine barki Seydina Mohamed kon lii dama caa xam wax trop. Mm-hmm. ñenn ñi ci wax nag wax ju bon ñëpp dégg naa ko abazed mm-hmm. barki Serigne Sall effectivement parce que ñu bari ñu ngi wax que ni bébé Eva dafa bëgg a dóor ñànku ci kaw Sénégalais yi moo waral mu def lu ñu mel. man ay dafa xam nga li ma gën a bañ ci Sénégal mooy loolu mm-hmm. nañu bàyyi dañu dafa bëggoon nangam. te xamuñu maanaam du ñu andi benn preuve ak yaakaar naa ak damaa foogoon ne loolu ku ko dindiwul foog ñu bàyyi ko Sénégal te Sénégal yëpp man ba ci man moom lañuy ñuy doxee damaa yaakaaroon ne damaa foogoon ne amoo ci benn preuve Bébé Eva live fam live na ko tudd ñànku live na live fam gis-gis ñenn ñoo gën ne ñànku moo waroon def te effectivement dëgg la. ñànku moo waroon def ñànku moo war moo gën a siiw Bébé Eva. Hmm. waxuma nag moo def ko force parce que nit mënoo def luñ la. loo bëggul. mais lii de be Eva def tey ñànku moo ko war a nañ nañu waxtaanee taxawaayu ñànku ci feebaru yaa bi. taxawaay dégg nga li ma wax. Mm-hmm. lii bébé Eva def. ñànku moo ko waroon njëkkee laa la wax nañu waxtaanee man waxuma da koy mën wala mënu ko moo xam ba mën na ko wala mais bu ko deful bébé Eva def la war a def génn bébé Eva li ma defal nii mënuma laa fay parce que maa ko waroon def te mënuma ko waaye dafa mel ni mën nga ko defal loolu moo doon wax bu rafet bi mais ay gaar waaleeg ay affaire yëpp amul loolu sens ñànku même bu ko mënul nee na mu ngi doon génn di jël ay woo ay nitam ci suuf ak yooyu non moom loolu la ma mais bébé Eva bu génnee def lee na woo bébé Eva ne ko barke alxuraan li ma defal man man nga ko defal parce que lii maa ko rente mënu ko mais bu ñu génn bébé Eva baax pare ñu génnaat def ay gaaruwaale ak ay affaire ay ñàkk fayda ñànku gentleman la waruñu ko dugal sax ci yenn polémique moom bébé Eva parce que ñànku bi d'accord ci non maanaam mënoon na ñàkk xam a moo tax mënoon na ñàkk jarul leeral comme sorte génnoo sorti ba lii am bul def defal zéro bul génn def sorti parce que du ñu leeral ñun xoolu soxlawuñu leeral xam lañ soxla ku dimbale ki feebar tëdd amul leeral parce que looy leeral ñun soxlawuñu leeral kan lañ soxla lan lañ soxla ki ki feebar faju wala bu génnaatee mu génn ne ah bébé Eva kat ni Sénégal ñu ngi koy ŋaañu di ko wax lu nekk waaye kii li mu def nii man la ko defal man ñànku parce que maa ko waroon def parce que yaadu ko sama yaadoo la wax dëgg yàlla bëccëg am nañ bëccëg am nañ guddi kon bu feebaree tey mënuma génn ketal bébé Eva génn ketal ko kon bébé Eva dama koy remercier di gën ko jàppaat parce que sama jigéen la taxawaay bi mu taxaw man ñaangi ko maa ko waroon taxaw waaye daa mel ni man la ko defal loolu moo doon wax ji mais ay leeral amu ay leeral naan génn leeral lu ngeen jotee sénégalais yi ñoo mën a jaxase ñenn ñi du ñëpp na ko fet bàyyi weer ci benn fan ñànku foofu dafa juum man mënul man du ma génn di leeral ay ñànku leeral rek ay li jarul leeral mu naan bébé Eva sequñ dara xëy na dafa juum ak amul dafa juum li mu waroon wax mooy bébé Eva suma jigéen la lii mu def moo la war a def bu ko kenn wax dara ñeneen ñëpp influenceurs yi di dugg di fenn di wax ak nekk Europe ak yëpp comprendre nga du ñu nit ñu baax je comprendre nga moo tax parce que bu ñu doon julli ay julli lañ nekk nañu baax bébé Eva dañ koy encadré je mm-hmm. comprendre nga bébé Eva li mu def ba ma bëgg képp koo xam ne jullit nga barke alxuraani karim bu génnee ci mu ngi dafa feebar xaw ma yaay mu feebar parce que am na gor yoo xam ne ñemul wax def lu baax pare am ci lu bon mais nag yàlla moo mel noonu fay yàlla mais su génnee na ko képp koo xam ne bonne volonté jàppale ko mu gën a taxaw def social parce que mën na social te yàlla ubbi na ko ci buntu social ba pare wërsëg social dañ ko gën a jàppale te man am na contact yoo xam ne jox nañ jox naa ko pour bu tane képp koo am ne amal na feebar nga contacter bébé Eva incha allah mu taxaw ci ko a taxawee bébé bul tiit bul ragal bul jooy bul def dara ñëpp a ngi sa ginnaaw amul kenn koo xam ne nit ku baax la te kontaan ci li nga def nit ñu bon ñi rek ñoo kontaan ci moom ñoo ñoo ñoo koy contre mm-hmm. mais képp koo xam ne ku baax nga jurit nga. nitu yàlla nga bébé nga Eva kontaan nga ci moom man ñi ma woo ci bébé Eva vidéo yi ma dugal kenn xam nu mu toll ñëpp félicité bébé Eva kon sama gaay nañu bàyyi lañuy def gis naa yenn seetkat yi jigéen yi di génn di duul di attaqué bébé Eva di fen te xam nañ ñoom bu ñu bugguma sa wax quoi ah alors euh, dañuy ñëw ci coow yooyu nga xam ne tudd nga ko parce que junj nga léegi mais man du may jaar ci tur yi parce que am na ñoo xam ne génn nañ di wax ci coow li dañuy ñëw ci ñoom kenn par kenn parce que coow li laxasu ci ginnaaw dafa mel ni lu bëri ndax Adamo daal nay génn daal di ciy wax euh, ñu bëri di wax que ni euh, ki nga xam ni euh, moom moo di Mame Ndiaye Savon moom moo ko yónni ndax gis nañ ni maam Ndiaye ak bébé Eva dañu jotee moom Adamo sax euh, toog naa du benn du ñaar ba ci yow sax bokk nga ci ñi nga xam ni euh, dañu ko doon wax pour mu bàyyi li mu nekkee ba mu bàyyi ko woon mais dañu gis ni dafa duggaat ci euh, lu ni mel di wax ci li nga xam ni moom moo di deru ñenn ñi xamuñu nag moom moo am raison wala ñoo ñoo am parce que du nekkuñu fi pour juger kenn mais Adamo coow li ni nga xam ni moom la ci taxawee ak yi mu wax bébé Eva ak engagé yépp ana la ka ngay wax ak ci ñi naan Mame Ndiaye moo ko yónni pour mu wax. bon fi ma njëkkee waxee Adamo Adamo suma frère la li nga wax dëgg la waxoon xam na moom xam na waxtaan nañ moom ba mu bàyyiwoon lu bare bare bari bari kon gis naa ko fan dafa duggaat yoo xam ne yoonam la kon dellusiwaat na ci yoonam du ci wax na lu bari Adamo parce que waxoon naa du ma waxaat ci moom mais d'accorduma ak moom benn yoon d'accorduma ak moom benn benn benn yoon ci li muy def d'accorduma benn yoon ci li muy def benn yoon dafa juumaat xaw ma dafa juumaat xaw ma dafa delluwaat ci li mu nekkoon donte nag ay na maam Ndiaye yu moo yooyu mooy li wax sànq sénégalais rek dañ nan mam Ndiaye mo ki ni parce que mam Ndiaye amna problème ak Eva amna problème ak Awa Ama nangam non loy leruma parce que awma ma ci ben problème ne maam ko yoni comprendre Sénégalais ñi ngi wax lu nekk mais sama yoni ko ci lolu man mais limu wax da aadama lay wax limu def waru ko def parce que nit ki boko bañé tam mu def lu bax waxal ko lu bax man nit lu metti metti buma la bañé suma bëggé yow ci wax damay wax lu bax li nga def mo ngul wax lu bax li nga def ma nopi mais aadama anduma ak mom ci lén lim def e bébé Eva barki Seydina mohammed na xol rakam tey bu ñu ko defoon rakam Sénégal wala keneen day métti ci moom il se comprendre nga kon du wax ci kenn Adamo lay wax direct li mu def d' accord ma ci du ma wax ci moom di ko blâmer ko saaga wala leen parce que dootuma ko def nee naa dootuma wax lu bon mais d' accord ma ci li mu def bébé Eva barke sëñ Sam Mohamed voilà. Mm-hmm. Mame Ndiaye Savon mi nga xam ne tudd nañ ko ci coow li daal di wax ni moom moo jël 15 pro max iPhone daal di koy jox ki nga xam ne moom moo di Adamo ngir mu yàq bébé Eva ndax ñoom ñaar demeetul noonu. wallaay déggoo yéen a ko wax rek yéen journaliste seytaane yi. ah ñun suñu yoon nekk mu jox ko gisuma audio bu mu ko ne aadama maa la jox li ndax nga yàqal bébé Eva dégguma audio dégguma dara yaakaar naa la ñuy wax parce que na Sénégal la ñuy bàyyi Momo ak Ablaye dañuy am problème ah Idali am problème Ablaye ñu ne Momo moo ko yónni pour mu yàq Idali nañu bàyyi loolu nañu bàyyi loolu mooy li ma wax sànq rek polémique bu amoon sànq ji démb ak Wally Seck ñu ne waa nguur gi te amuñ benn nañu bàyyi loolu maam Ndiaye bu neexul kenn neexul kenn bu neexee kenn neex na kenn kenn ku nekk ak ku la neex kenn ku nekk ak nga bañ mais nañu bàyyi loolu loolu ñooy tas réew mi nañu bàyyi loolu sama gars yi. kon na nga jàpp ne dañu bañ maam Ndiaye wala dañu acharné non même bu poñ maam Ndiaye du ma ne kenn dafa bañ kenn. mais bu ñu gis ne moom moo dafa am problème ak Idda rek laay ak Idda day am problème ñu ne moom moo moo ko yónni loolu laay wax laa la wax te amuñu preuve. Mhm. ñaaw njort baaxul nañ bàyyi ñaaw njort Sénégal voilà sol na. nañu bàyyi ñaaw njort dugg nga ci aadamo mais itam am na beneen seet kat boo xam ni daal di nay tukk ci coow li di yaay faal euh, euh, moom itam ñu daal di gis mu génn daal di ci yëy yàbbi ak naka ah, an naka nga gisee sorti yaay faal. xaw ma kooku mais gis naa daal benn jot xaw ma ne ay njàlleer xaw ma di génn di fen. Hmm. nañu bàyyi fen ak bëgg bëz tax ñu moom li mu wax kooku li mu wax noonu xanaa xamul li mu wax dafa am danger. Ah li mu wax maa ngi Ah, mu ngi sama téléphone nii nee na mu ngi sama preuve maa ngi preuve téléphone di ma yot ji audio kooku bu koy bébé Eva pelenton du fanaan këram. nañu nga jàpp dara. non dama jàpp ne. Mhm. man moo xam mais dama ne. Mhm. erreur weesuwul nga nekk live naan dama yor preuve bu diw mu ngi nii ñëpp di capturé live nga ne dama yor say preuve ba pare tudd turam nekkoon noppil say preuve ngi nii sama téléphone su ma ko playé àdduna nga bàyyi àdduna di nga xaru ji loolu dafa nekk ménage boo xam ne dafa garaaw. am ñoo xam dañuy nekk ci internet bi te xamuñu lan mooy internet je comprends nga te loolu seen rôle moom loolu seen rôle seen rôle mooy bu dee mën nañ faj bu dee mën nañ bu dee mën nañ bu dee mën nañ du histoire bu ñëw ñu dugg ci nañu xool situation am na wala histoire am na ñu liggéey ba fay histoire bi loolu mooy seen rôle mais bu dee seetkat nga mais seetkat boo xam ne histoire bu am ci diggante nit ak nit nga ñëw yokk ca ay affaire ba pare naan dama yor ay preuve nañu bàyyi li ñuy def kooku tey ñëpp xam nañ ne bu ko bébé Eva yóbboon police du fanaan këram tey parce que nan ngay toogee devant àdduna yëpp di seetaan nga dama yor ay preuve bu moomoo ay audio a ngi nii ak ay vidéo su waxee nangam bu ma ko tegee àdduna nangam loolu dafa garaaw menace bu garaaw la. est-ce que yoru ko. na ko génne kon mais en tout cas daal sama gars yi seetkat yombul de. da nga jàpp du seetkat. dóorkat yu bëri nañ fi daal en tout cas mais seetkat yombul seetkat dëgg. seetkat dëgg seetkat dëgg suba ngeen di xam kan mooy seetkat. ah bon man Ida li may waxati lii dama bëgg nga dagg ko dugal ko suba ngeen di xam kan mooy seet ah suba laay jàkkaarloog seetkat kullu fadrin laay jàkkaarloog koo xam ne jàmbaaru Serigne Babacar si suba laay jàkkaarloog koo xam ne dafa duggoon xelwa ku nekk xam ne naar naari xam nañ ko buur naari xam nañ ko. soxna Mariama si mu Serigne Babacar suba ngeen di am na suba ngeen di xam ne nitu yàlla am na. nit yàlla nag day génne fu nekk góor jigéen waaye ñii sëqal seen kawar yokk njañ yokk naan yaay faal laa non yaay faal du yokk kawar naturel boo ko yombul. Hmm. naturel demal ñaari baay faal fa ngay gis fekk baay. naturel da jàpp ni du yaay faal du set non waxuma la bu demal la yaay xaw ma yaay faal bu mu mën doon man yaay faal yombul laa la wax parce que man yaay faal buy kuy dugg ci ay détails rek man pour man doo yaay faal. yaay faal warul dugg ci ay détails warul xuloo warul fëgg dënn non Baye Fall dafa war a teg wàcc boppam yàlla yëkkati ko Yaay Fall daa war a wàcc boppam mu lépp ba pare wàcc boppam deng yàlla yëkkati ko Cheikh Fall moo fi mën ci góor yàlla yi Cheikh moo mën ci góor yàlla yi bala nga xam kan mooy Cheikh da man ëttu Serigne Touba nga xam kan mooy Cheikh Fall waaye lu mu defoon daawul toog ak nit ñi daawul toog ak mag ñi chaque jour mu ngi liggéey wàcc boppam daawul sax ay dàll lépp lu Serigne Touba soxla woon bala moo gestu Cheikh Fall andil ko ko ba te li nekk ci Cheikh Fall bu ko wane woon ñëpp topp Cheikh Fall bàyyi sëñ Tuba man ma te laay wax ah Cheikh Fall nekkoon ci doxoon ci moom li doxoon ci moom su ko wonee woon ci àdduna ñu bàyyi Serigne Touba topp Cheikh Fall Baye Fall noonu ngay mel Cheikh Fall dafa jël lépp toog ko Serigne Touba yaay Fall tam noonu ngay mel da ngay mën lu bëri ba pare fees dell ba pare ne dégg suñu borom wane la mais yaay Fall doo fëgg dënn lu ma wax mooy am su ma wax bu fen àdduna la yam loolu dañ bàyyi la ñuy def nañ bàyyi naxante bi mm-hmm. fii Italie ku nekk xam ne wuy ma man xam naa seetkat yi xam naa sëriñ yi mm-hmm. barki seexul xadim nañ sa diggante ak ñoom ku ci dégg ma la ñoom ñëpp kulu fadrin benn sëriñ sëriñ bu fi gën a siiw laa la wax boo tuddee mm-hmm. xam na kan mooy Italie wala déggoo ma nañu bàyyi la ñuy def xam nañ lu bari nañu dal nekk Baay Faal wàcc seen bopp barki Cheikh Fall alors Idadi kontaan nañu bu baax a baax en tout cas bëggoon nañu mu gën a yaatu nag mais ku ne xam na sa diggante ak Wally te jamono bii defe naa ni boo fi yaa ngi jëm Vogue donc bëggoon nañ mu gën a yaatu it ndax am na yoo xam ni daanaka da nga koo junj rek te waroon nañ cee gën a mën a xuus mais yoon du yem ci benn en tout cas kontaan nañu bu baax a baax gis nañ yaa ngi ci liggéey bu jóge Mbour war a dem Vogue donc en tout cas ñu ngi lay félicité ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yaa ngi koy defal artistes yi nga ni te benn artiste bu ndaw ka muy bu en tout cas ñoo ngi lay féliciter ci liggéey bobu nga xamni ni koy def en tant que ménagère waye itam en tant que ko xamni ni yaa ngi jub di jappalé artiste yi ci expérience bi nga xamni jot nga ko am ci showbiz mhm. ma bay la nga tagox wala wala mo mo da nga wax luma neex noonu parce que temps yëpp kuma xam-xam ne may won ngi may won maa ngi sama jabar parce que kuma sama madame mu ngi mbuur ah, kon sama jabar mu ngi ma sha allah waye aussi tam dama war am soirée mbuur inshallah allah ak mbooja laa linguère nga xam le 12 la fële ci RDC sali man ma ménagère am mbooja kon xam ne man ménagère am amul benn artiste mooy ménager pour Mbodiya waaye di ubbil artiste yëpp rek euh, buntu képp ko xam ne bëgg nga liggéey ak Idali rek boo ma contacté incha allah nga ñëw man contrat laa liggéey nga ñëw ñu def contrat ñu liggéey li ma yàlla may tuuti ak su ci showbiz ah ma partage ko ak yow parce que yàlla may na ma showbiz ci may na ma ay nit aussi tam te ku nekk xam ne ne Wally Ballago Seck laay topp euh, Ramdan laay topp te am na lu ma fa roote wax dëgg yàlla te naa ko partagé ak li nga xam ne moo di euh, jeune talent yi parce que Wally dafa yaatal te toujours maa ngi ci waali mais teewul jeune talent boo xam ne ba nga liggéey ak man euh, nga ñëw ñu liggéey incha allah ci kattan yàlla mais nag nii rek na raay jub rek macha allah waaye di wax euh, tey ñu ngi jëm Vogue incha allah suba encore ñu ngi Vogue waaye tam le 28 incha allah ñu ngi jëm Mbour waaye la le 21 septembre ah ñu ngi jëm fi nga xam ne nag mooy stade Njaareem ak sama jigéen sama xarit maam jaara ku nekk xam ne maam jaar borom woyu réew yi yi nga xam ne Wally Balago Seck moo ko boole ak man muy suma jigéen suma xarit nga xam ne moo gën ci man nga xam ne lu ma soxla bala maa pare mu def ko kooku mooy maam jaara moo woote nag incha allah fële ca stade njaareem géejawaay ci banlieue bi incha allah mu di nag sargal njaga euro incha allah sargal njaga euro ci kattan yàlla ku nekk xam ne njaga euro sargal njaga euro mooy sargal àdduna mooy sargal musique mooy sargal showbiz le grand manager xam moo fekk waale ci 10 yóbbu ko ci 100 kooku mooy njaga euro kon tey ñun la ñuy sargal framare ni kon di wax ne incha allah la 21 incha allah na njaareem ak sama jigéen jaara bu ko kenn rate banlieue maa ngi woo ñëpp waaye la 14 ñu ngi jëm fële ca Joal incha allah a ah, ak Wally Ballago sekk nag incha allah waaye tam ku nekk xam na ne ka ko fa yóbbu di xaritam di léppam macha allah euh, di xarit Wally Ballago sekk muy promoteur bi macha allah sama gars yi di wax ne incha allah 14 Joal bu kenn tardé ci kattan yàlla ak mbaaxam waaye daal li ñu gën a ñor lépp loo xam ne Wally mu ngi ci rek ñu ngi ci biir waaye Mbodja mu ngi ci biir Wally mhm. Mbodja laa Linguère ci biir Wally la nekk ci biir Ramdan la nekk kon mooy woote incha allah té nak inshallah mo jogé fi fii yaangi ni ngi mu ngi ni li ni borom bi wala laa ko yobul spécial mu ngi ni wala jënd borom après di nga gissanté ak bass rek bass man wali mo jënd borom bi PDG bolé na la ak idali commercial <laughs> waaw PDG bass waaw bas wasaare han ah. mu ngi non mu ngi ni borom bi wala laa ko yobul inshallah tay buñ jogé soirée mo koy jëndi ak Mbodja li ngeer le tout fële ci RDC képp ku dëkk Mbour inshallah ñu ngi lay wo ci carton yalla amna ay parrain ak ay marraine inshallah ku nek xamna nak idali du laal lu dem kii nag sama woykat la man maa koy ménager waaye jëlaat naa lépp ménager bi yëpp waali musul ménager kenn mhm. waali mhm. musul ménager kenn mhm. kii dama jëlaat lépp jox ko ci loxo waali waali ménager ko muy mboojaa laali jigéen la suñu lépp la nekk ci musique di jeune talent def album yombul def na album bu macha allah kon jëlaat naa lépp joxaat ko waali parce que man waali mooy sama patron mënuma nekk patron kenn te waali nekk fi lii nag damay forcé waali jëlaat lépp jox ko ci kawam kon blog bi wala ko yobul mu jënd bloc bi yëpp inshallah allah ko ko yalla li Linguère ci carton yalla di wax rendez-vous inshallah allah ci kan tuti vok inshallah ak le centre du peuple sama gaay momo di remercier di remercier sama jabar machallah parce que ku góor waaw parce que sàccoon nga film bi nak i daali mariage journaliste yi yëguñu ko waaw xam nga légui man sama lepp code la def di remercier nak sama jabar machallah jobu jubo, ku nek xam na ne machallah ablay xam na limay wax euh kuma jappalé la parce que mais jóoba juba yàlla mu yàlla bàyyi moom parce que nekkoon naa ci yeneen loxo mais loxo yooyu dafa ñagas mooy mooy loolu mais loxo yi ma nekk nag ku ne xam ne dafa nooy waaw mooy loolu maa ngi koy gis nga ma dem watu xam nga mu ñëw mooy loolu loolu dafa am solo daal jóoba juba kontaan naa ci yow yàlla yàlla bàyyi yow taalibi Serigne Saliou bi yow Serigne Saliou moo ñu boole balaa may tëj rek idal yi may ma loolu ku dàq photo Sénégal ku dàq photo Sénégal photographe bi gën a mag xam nga kan moo daq photo Sénégal. Mhm. te gars yi xamuñu ko. Mhm. Silla. Silla grand Silla. bu Emedia Universe. mu nekkoon fi nga xam ne moo di ITV la nekk. Mhm. moo daq photo Sénégal. mais nag bu dee ñu bëri wax ay photo wajaar Pathé moo ci gën a bëri wax te mënul photo mais Silla moo ci dàq photo ma tegu ci. te bàyyi naa photo. mais Pathé nee na moo leen moo leen moo leen formé parce moom ba fi nekk nekkoo leen fi. nay wax rek. Mm. <laughs> nay wax rek. ayca kontaan nañu bu baax a baax di leen jaajëfal itam euh, nos chers euh, internautes jàmm ak jàmm nañ yàlla sàmm ñu nekk ci jàmm ba beneen yoon ak jàmm am